Real Madrid fait encore match nul c'est malheureux pour vous les merengues oh là là salaam gars yi bégg naa leen nuyu ko ci nekk seen ab tur ak seen ab sant match tey bi c'était très très très difficile très compliqué pour Real Madrid li waral loolu ñëpp xam nañ ko moom lañ établiroon semaine bi passé semaine ba ca topp ba ci tey jii ñu nekk nii lii problème Real ñëpp xam nañ ko réalité dañ koy wax bañ di tourner autour du pot di jaay expert di jaay mm, xam football te fekk ne ndeysaan du loolu àdduna li am da gis ko ni da koy wax peut-être loola nga gis mu doon problème bi ëllëg mën naa def ba doon solution defaru ba baax solution mu ngi noonee muy problème bi premier problème dañ koy eh, eh, leeral ci Real Madrid Vinicius Kylian Mbappé man dama jàpp ne pour le moment xaw ma nag ëllëg lu ne mën na am mënuñoo bokk terrain pour le moment nag ñoom ñaar ñëpp flanc gauche bi mooy seeni poste préférentiel muy Vinicius di Kylian Mbappé Kylian Mbappé il n'est pas un avançant il n'est mën nañ ko liggéey ak moom nag comme ni ñu def Cristiano Ronaldo comme joueur de couloir transformé ko comme une dem bu doon dem bu doon pointe ñëw Real Madrid en tant que numéro 10 ñu transformé ko doon attaquant pointe dugal ay bii yu rëy rëy mu ngi doon et tant d' autres na am nañ ci réussite mais en ce moment la xaw ma nag peut-être ëllëg ñu liggéey ko ak Kylian Mbappé mais moment yi ñu toll nii c' est très très difficile footballu Real équilibré wul équilibré bi marqué. tenir tenir tenir milieu terrain bi organisé bi ba ñëw ci finition bi terminé action bi mooy problème bi mooy nag amuñu kuy fekkee Vinicius mbappe bokk couloir bal bi ñu koy yóbbandoo kan mooy fekkee pour terminer action yi c'est c'est un peu compliqué léegi nag c'est en Ancelotti de changer le système ou de mettre un de ces sur le banc wala mu jël kenn teg ko ci flanc droite bi loolu mooy am solution peut-être mën na am sans système peut-être. xool ñoom ñaar na lañ mën a nekkee à l'aise ci biir terrain bi te duñu yàqal kenn moroomam euh, xaw nañoo sentir tout égoïsme de la part de Vinicius tey ci match bi te loolu euh, des choses yoo xam ne nii c'est à éviter pour des stars yoo xam ne dañoo nekk ci club bu mag bu ni mel ni Real Madrid loolu dafay polluer équipe bi te mën na ko euh, dégrader waaye mën na ko yàq complètement mu ngi noonu mu doon match boo xam ne c'était très compliqué pour Real Madrid leeral naa premier problème bi mooy Vinicius ak Mbappé danoo bokk.

nul ak Las Palmas fee ci dëkkam am deux nul ci championnat pour le moment ak benn victoire am na cinq points Barça am neuf points actuellement Barça rawee na ko quatre points mu doon loo xam ni ah bu ñu ko teewee fii nii championnat bi ñëpp xam nañ fu muy mujj kon nag Real jugaat leen. départ Toni Kroos aussi affecte na leen Toni Kroos da ngeen waroon a anticiper son départ peut-être da bett xaw ma nu mu demee noonu mais vous devez devrez anticiper euh, son départ. gis nañ ne Valverde il essaye de combler son absence di bëgg a jouer deux rôles mais c' est un peu difficile ça ne peut pas être ko football saison bi yëpp bëgg di marquer des jouer box to box la anglaise yéeg wàcc ah bëgg organiser bi loolu benn xel mënul jàpp dix. loolu loolu il fait des des il de bons matchs il donne tout mais à un moment donné da ngay dem da ngay éclater foofu boo fa blessé pour nga ñëwaat du du ay ligaments croisés lu ne nga fay dégg yàlla mu ko am nag mais euh, euh, équipe Real Madrid dafa déséquilibré wu mu ngi noonu Modric il commence à prendre âge jot naa génn ci match bi Ancelotti il faut mu trouver solution rapidement possible sinon. mbetteel mën naa am te loolu vraiment yéenewuma leen ko ak effectif bi ngeen yore vraiment euh, te jàpp naa ni man kookee di Arda gouleur il mérite des minutes keroog teg nañ ko mu titulaire Euh, dese na wane boppam carrément nag positionnement am c'était pas normal Arda Güler ko xam il est un numéro 10 il pouvait remplacer Bellingham mu ngi noonee mais boo ko bëggee teg fa samp ko ci couloir bi bàyyi ñett ñi dafay xaw a métti ci moom c'était un peu compliqué pour moom keroog la fois passée pour mu wane boppam bu baax a baax kooku di Arda Güler euh, match la boo xam ne c'était très difficile pour lui euh, moom Ancelotti nag jàpp na ne tojul dama koy teg ci banc bi deuxième mi-temps moom it quelques minutes yi muy am de balle nga xam sànni ne ce gosse là a quelque chose dans ses jambes am na lu mën a apporter le di Real Madrid je pense que avec l'absence de Bellingham je euh, crois que ni Ancelotti euh, peut-être Arda Güler wala Brahim Diaz ñoom ñaañ mënoon nañoo combler cette absence mu ngi noonu ne euh, le système mu daaw bi c'est ñu bëri ñu ngi naan. daaw ñu ngi doon football sans avançant te ñu ngi doon gagné ay match mais système bi Ancelotti doon footballé daaw c'était c'était pour euh, pour pour Bellingham c'était fait euh, pour pour pour pour augmenter la lumière de Bellingham pour faire jouer Bellingham pour pour euh, man naa ni teg Bellingham ci axe boo xam ne nii mën naa ni dafay gën di wane boppam di dugal ay buts malheureusement nag cette année ci Mbappé ba mu ñëwee damay je vais dire malheureusement nag couloir bi Mbappé joueur de la ci flanc gauche gën a nekk dañuy obligé gën a reculer loo kooki di Bellingham moom it muy organiser euh, nekk ci effort beeg yooyu mais nam daan fekkee saison bi daaw di dugal ay buts ces temps pour mu fekkee day xaw a metti nag yaa Kylian Mbappé devant trois devant boo ci doolee quatrième milieu terrain bi dafay tóol. ci noonee nag à tout moment équipe adverse yi mën na la def musiba naaru laay kon noonee nag mu doon loo xam ne ni c'est à Ancelotti daf ko waroon teel a préparé arrivé Mbappé bi ak départ Toni Kroos xool ay système yoo xam ne dina mën a adéquat ak joueurs yi nga xam ne moom la am pour mën a avancer évoluer dem te Real Madrid seeni changement dafa war di gaaw rapide wala maanaam euh, comme pour changer système wala defaraat équipe bi dafa war di gaaw. nag temps amul équipe yu mag yi amuñu temps man Seex si teg ñoom Bayern Munich rek non non ñoom amuñu tarfatin ay ni ci ay temps bu leen ko mayee ñoom ñu exploité ko passé à autre chose te baax sax gis na ne il commence à monter en puissance actuellement rawee na la 4 points championnat bi jeexagul gaa waaye Ligue des champions baa ngi ñëw match yi dafay bëri waaye coupe du roi yi geneen ak geneen ak geneen kon nag gaaw leen ngeen jublu ci seen situation bu critique bi ngeen nekkee nii ak génn ci ngeen a jubluwaat ci saison bi nekkaat ci seen temps mu doon match boo xam ne c'était un pour comme bi mais aussi ba ci bi football bi équipe bi dafa déséquilibré woon te équipe bu déséquilibré bu mel ni Real Madrid euh, pour mu évoluer dafay xaw a difficile fa ka ñëpp di xaare duñ leen fa gis may ni xaar ci commentaire yi lan moo nekk problème Real Madrid exact mais Madrid wala mën a apporter mënoon a avancer mais Enrique da nga koy gis muy football nga sànni ne kii c'est un pur attaquant c'est un jeune joueur boo xam ne il mérite plus de pas des dix minutes vingt minutes soit quarante minutes wala trente cinq minutes on peut comprendre bu mënul titulaire moitié li des ci deuxième mi-temps bi peut-être mën na ko football nag amoo attaquant pointe de métier nga gis gone goo xam ne toj na Brésil eh, football nga ko keroog dix minutes nga ko dugal moom it mu toj dugal bii bu rëy. pour quoi par nga mën koo faire jouer continuer mu am confiance am gën a yokk mën na la indil dara de ki ngeen di xeeb ëllëg moo leen mën a yóbbu fu soree sori il est jeune il est encore jeune bu ñu xool ne xale la yaa Kylian Mbappé dedans et tout Lamine Yamal il est jeune il est plus jeune que lui mais il est titulaire foofee ca Barça te mu ngi wane boppam bu baax a baax a baax a baax football bi jamono ji xale yi ñoo ko mu waaye kii prouvé moom ngay teg mu wane fo wane boppam def fulla ak fayda en ce moment là Mbappé gisul ci pointe bi jëlal ki nga xam ne pointe la nga teg ko mu dugal nag temps bi du la ko may championnat yaa ngi dem match yaa ngi nul nul nul balaa ngaa mën a adapté wu carrément championnat bi dafay xaw a métti kon nag soit Mbappé wala Vinicius kenn toog ci banc bi wala Mbappé Vinicius kenn nekk flanc gauche kenn nekk flanc droite mais kenn ki nekk ci pointe bi kenn nekk ci flanc bi dafay xaw a difficile man dama jàpp pour le moment mu ngi doon ne gars yi laa gisoon ci match Real Madrid ak kooku ñu naan ko Las Palmas bi nga xam ne dañoo nul un bi partout képp koo xam ne nag abonné goo suma chaîne bu ko tàyyi bësal la bouton s'abonner bi ngay liker